district sanitaire bu Wakhinane donc ñu fi ñëw assister benn benn benn xarafal euh, boo xam ne xarafal boo xam ne mu ngi regrouper ay enfants yu bëri ki ko organiser nag di Atoumane Atoumane Dieng donc dëkk ci quartier bi Wakhinane donc moo organiser lii ànd si ak waa ak waa Club de Dakar donc la si àndal pour organiser journée bi. donc ñu ñëwoon fekkee li pour wan leen li fi xew tey ak euh, famille bi famille Wakhinane nan la leen dimbalee ak aussi nan la leen ba ba taxawal donc ñu ñëw si tey cérémonie boobu donc ñu ngi fi district euh, sanitaire bu Wakhinane maa ngi dëkk fi gox bi Wakhinane Nimzatt euh, initiative bi ma jël ni tey jii dama gox bi ma dëkk xam ñu bari ñoo xam ne des fois dañu nekk si situation yoo xam ne ñun ñu dëkk si quartier bi ñooy mën a jàppale léegi bu ma ñun ñooy mën a jàppale ma yàgg xool ne am ñoo xam ne dañuy bëgg a seen doom mënuñu leen xarafal bu ma xoolee ba si yàgg ma daan ne am une chance boo xam ne am xalaat ne xaaral ma jéem xool xool may def ba dajale ay nit xale yi am amaatee bonne volonté yoo xam ne dañoo mën a topp fexe ba kii nit ñi jema organiser li sama bir quartier té dama ko def pour néw ñu doolé ño xamné won na ma am ay ki ma jëm sé japp dal def ko dal ak samay partenaire waaw avenir avenir atum bu ma ko bo gisee ma def initiative parce que nit ki dama xam ne boo dëkkee si gox am na yu bari yoo xam ne nga nekk jeune nekk si gox am wër na euh, te yaa ngi nekk si benn métier métier bi ma nekk noonu ma ne xaaral man ma jëm si li ma si mën sama doole ma jëm si jàppale sama gox moo tax te maa ñaan yàlla tamit euh, li may ñaan daal mooy lépp lu ma mënti di daal naa mën a def la sama saay mooy lan jéem a di jëppal sa li ma am daal ma jàppale ko sama quartier gi ma dëkk daal loolu laay ñaan quoi. waaw waaw sama dernier moom mooy maa ngi remercier ñëpp samay staff remercier samay xarit euh, ñoom ñëpp dañoo ñëw taxawuma remercier tamit euh, délégué quartier yi euh, di remercier tamit médecin chef poste de santé bi tamit taxawu na ma di ko tamit ak samay partenaire ñoom tamit taxawu nañ ma si ma bi ma ko expliqué ñoom ñëpp dañoo ñëw jàppale ma daal maa ngi remercier ñëpp daal